campagne bi nga xamante ne moo ci gën a fës euh, actuellement bien évidemment euh, Sonko et Barthélémy Diaz euh, validé ban lecture nga ciy def. validé comme ni ko xale yi di waxee waaw ça veut dire simplement que ne ñoom ñaar ñëpp dinañ nekk candidat ci élection législative yi. Mhm. kii di diriger la liste bu PASTEF kii di diriger la liste sàmm sa kàddu li tax ñoom ñaar parce que ñoom ñaar la. ay seeni i naataangoo wala seen ay wujj ci langue politique gi. demoon attaqué ci woon seen candidature fële ca conseil constitutionnel. Euh, ma yaakaar nag ne le fait que le conseil constitutionnel décidé ne dafay rejeter parce que la précision est importante. Mm-hmm. dafa rejeter euh, euh, ni ñu ko waxee sax recours boo ko mënee tuddee noonu yi nga xam ne moom la fa déposé woon pour irrécevabilité dina ci ñëw léegi mais dama jàpp ne euh, euh, la justice sénégalaise dans son ensemble le conseil constitutionnel notamment mhm. dafa posé waat tey un acte boo xam ne ci sama gis-gis bu gàtt mhm. dama jàpp ne doit tendre à rassurer ñi nga xam ne ñoom ñooy les acteurs politiques ñi nga xam ne en général ñoom ñooy les sénégal yi nga xam ne depuis des années li leen doon metti mooy am une li ñu doon tuddee une justice aux ordres mm-hmm. un conseil constitutionnel et d'autres euh, juridictions yoo xam ne lu nguur gi bëgg moom la ñuy def mm-hmm. euh, pourquoi parce que boo seetloo tuuti faatu ci ginnaaw mm-hmm. conseil constitutionnel bi joué na rôle bu am solo pour que l'élection présidentielle am en mars 2024 parce que keroog ba assemblée nationale dajee décidé ne dañ ko bëgg a reporter ba mois de décembre ce qui voudrait dire que ni bu conseil constitutionnel taxawul woon ak les acteurs politiques notamment euh, xeex xeex bañ war a xeex heure bii dina fekk Macky Sall nekk ci réew ba léegi. mais le conseil constitutionnel avait posé des actes importants euh, pour que l'élection se tienne à date demoon na sax ba jox lu ñu tudde woon presque benn ultimatum président Macky ne ko à partir de du 1er président la République du Sénégal donc il faut qu'on avant Euh, magistrat yooyu également da ngay fàttali forcement le juge Sabassi Faye ak le juge Thion nga xam ne euh, magistrat qu'ils keroog ba ñu leen joxee dossier Ousmane Sonko dañ ciy jëloon ay décisions yu am solo ne la DGE amul droit di rejeter sa candidature wala di ko bañ a jox des fiches de euh, parrainage yaa ngi fàttaliku également les positions courageuses bi nga xam ne le ministre Ousmane Diagne jëloon na ko Ousmane Diagne l'actuel ministre de la justice à l'époque mu nekkoon cour suprême keroog bi mu amee le contentieux entre DG ak euh, Ousmane Sonko am na position yu am solo yu mu ci jëloon bokk na ci également magistrat bi ñu tuddee Marème Diop Gueye nga xam ne moom moo nekkoon avocat général bi ñuy àtte le contentieux entre Ousmane Sonko ak DGE ci la waxee woon ne DGE dafa outrepasser ses prérogatives pour bañ jox jox Ousmane Sonko des fiches de parrainage parce que kenn rek moo am droit wax ne diw mën na nekk candidat wala mënu ko nekk mooy le juge du conseil constitutionnel. donc da lay fàttali également que ni semaine dernière Fatou bi ñu toogee fii. ñu ngi doon waxtaanee. le le procureur actuel euh, nu mu tudd. Euh, Ibrahima Ndoye mi nga xam ne. moo libéré. Bougane Gueye Dany mm-hmm. Cheikh Yérim Seck ak Kader mm-hmm. euh, ginnaaw ba ñu leen tegee garde à vue mm-hmm. pendant je crois deux jours kenn kii trois jours kii des keneen ki benn fan le le même conseil alors conseil constitutionnel nag léegi bu ñëwaatee tey wax ne Barthélemy Diaz mën na bokk ci élection yi. mais dama naan on doit se convaincre une bonne fois pour toutes que ni. xëy na cette justice au ordres bi nga xam ne moom la doon jooy am ay politique yoo xam ne. un président wala ku mat doon toog fa mu toog naan magistrat yi def leen di wala bu leen def lii. Mhm. mën nañ jàpp ni mu ngi jeex ci réew. on peut résumer que c'est l'indépendance totale de la justice. je pas l'indépendance totale. Mm-hmm. Mm-hmm. mais li ma jàpp daal mooy ñi ngi jeex ci réew mi. ñi ngi ci yoonu jëm ci indépendance totale boobu ngay wax. Mm-hmm. parce que tey suñu xooloon ne li arranger le pouvoir mooy je sais pas ba xam loolu la mais en tout cas. suñu ne woon par exemple li arranger le pouvoir mooy Barthélemy Diaz ñu déclaré ko inéligible. retoquer la liste des. titulaire de Yewwi parce que la conséquence loolu la doon doon parce que mm. une liste incomplète dañ koy dañ koy en liste suppléants yi nekk gën rek nekk fa mm. dafay gën yombal liggéey bi le parti au pouvoir ci élection yi ñu jëm mm-hmm. donc cette décision la conseil constitutionnel jël xëy na mu jëloon une décision contraire moo doon gën arranger le parti au pouvoir mm-hmm. ça veut quelque part que ni le parti au pouvoir du moom moo nekk di wax conseil constitutionnel mm-hmm. defal lii wala defal lële dafa am euh, ñu euh, le euh, le Pastef moo laqatu ci coalition ànd defar so xaw ma nan suñu réew. mooy hmm. waaw ànd liggéeyal suñu réew ànd liggéeyal suñu réew. bu fekkoon ne Pastef ñoo laqatu seen ginnaaw. Hmm. et que ce Pastef là di gérer le pouvoir yaakaar na ne le conseil constitutionnel su fekkee ne dañuy wax ne seen justice aux ordres hmm. mën na taxawee nee na nii. mais man li ma ci jàpp rek mooy ware nañ ne. am nañ seen indépendance pour exprimer et loolu c'est ce que les Sénégalais attendent man loolu laa waxoon fii la dernière fois ma ne le fait que ñu libéré Bougane Gueye Dany Cheikh ak Kader Dia je, je pensais man pour man c'est une bonne nouvelle pourquoi parce que au moins ça nous euh, ça change un peu perception bi ñu amoon que ni justice bi ñu am dafay nekk rek pour li pouvoir bëgg mu defal ko ko loolu jàpp naa ne décision yi ñu bëgg et ça ça n'a pas démarré la président de Diomaye Faye ah. mais les dernier les dernières semaine du mandat de Macky gis nga décisions yi magistrat yi doon jël. ak waa conseil constitutionnel. ak waa conseil bien sûr et pour man c'est important léegi boo ñëwee ci le conseil constitutionnel wax ne Barthélémy Diaz mën naa bokk ci élection yi. Mhm. il faut que ñu liiraat la décision bi conseil constitutionnel joxe parce que man sànq ma toogee sama bureau loolu moo tax ma ñëw bu 7 heures. c'était justement <laughs> pour pour lire loolu. dama jàpp dafa wax lu am solo dafa wax Euh, waxul ne Barthélemy Diaz war na bokk warul bokk war na ne ci liste warul ne ci liste mhm. ce que diir veux dire mooy les magistrats du conseil constitutionnel ñoo la gën a xam ne mhm. Barthélemy Diaz mhm. suñ ko tegee ci yoon rek warul nekk ci liste électorale waru ci nekk waru ci nekk dañ ko war a génne pourquoi parce que dañ ko condamné à une de deux ans de prison dont six mois ferme loi moo wax ne ku ñu teg del euh, condamnation bu toll noonu dañ la war a génne ci liste électorale yi bi ñu condamné Ousmane Sonko dans l'affaire Mame Mbaye Niang à six mois de prison dañ ko génne ci liste électorale yi fali mu am une amnistie pour que mu delluwaat ci list électorale yi donc le conseil constitutionnel xam na ne xam na ne Barthélemy Diaz warul nekk ci liste électorale su nekku ci liste électorale yi warul nekk candidat mm-hmm. mais le conseil dafa wax lu am solo dafa ne kenn rek saisir conseil constitutionnel pour wax ko ne que kii war naa dafa éligible war a war a éligible ci élection législative kenn ñu ne ko mooy kan mu ne le ministre chargé des élections le ministre chargé des élections au Sénégal c'est le ministre de l'intérieur moom moo organiser élection yi donc le ministre de l'intérieur moom moo mënoon a bind le conseil constitutionnel constitutionnel ne leen Barthélémy Dias mënul nekk candidat aux élections législatives pourquoi parce que génne nañ turam ci liste et le de l'Intérieur ne l'a pas fait le ministre de l'Intérieur s'il ne l'a pas fait dafay tekki lan Seydina que ni gouvernement bi defu ko mais élection présidentielle euh, c'est euh, différent c'est différent parce que là on dit candidat député bokkut ak élection présidentielle élection présidentielle loi dafa permettre man su ma dee candidat Seydina di candidat euh, Mame Khady di candidate su fekkee ne Seydina dafa gis ne man waruma bokk man na dem saisir le conseil constitutionnel loolu la Thierno Alassane Sall defoon contre. Karim comment il s'appelle Karim Wade. Mm-hmm. loolu la Amadou Ba defoon contre Bassirou Diomaye Faye boo fàttali ko. Mm-hmm. mais bii pas le conseil constitutionnel dafa wax ne mm-hmm. le ministre chargé des élections et le seul à avoir le pouvoir de soulever devant le conseil l'inéligibilité des candidats députés. donc comme général Tine defu ko. ça veut que ni. son patron le patron du Gérald Tine Ousmane Sonko. defu ko ça veut dire que le patron de Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye defu ko parce que tey le pouvoir bi yomb na leen. su fekkoon ne euh, Barthélemy Dias dañu dégg de dafa war a bokk élection yi ñu bind ne nañ ko dindi ci liste électorale. pourquoi waruñ ko waruñ koo def. non li tax waruñu ko def se leur problème. dañu fàtte ou bien dañu ne nañ ko bàyyi rek. mu dem non je pense pas que fàtte la fàtte. ou bien ñu ko bàyyi rek mu dem bien. c'est non Ousmane Sonko a subi la même chose. Mm-hmm. dañu ñu dindi ko ci liste yi donc mënul fàtte. Mhm. le général Tine bi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur mhm. la mënul euh, le ministre de la bi nga xam ne mën na bind le général Tine wax ko ne ko kii dañ ko condamné nañ ko dindi ci li mënuñu ko fàtte. kon dañ ko bàyyi noonu. peut-être que ils ils ont voulu ñoom ñëpp participer. peut-être mhm. être élégants se dire que ni na ñëpp dem on va aux élections les Sénégalais vont juger mhm. parce que li ñu miinoon Cheikh Bara Ndiaye mi ngi koy fàttali démb ak beaucoup de pertinence d'ailleurs mhm. li ñu miinoon ak le régime de Macky Sall mooy Macky Sall képp ku mu war a jàkkaarloo la yaakaar ne mën nga koo sonal du ngeen jàkkaarloo moo doon tànn ay candidat ah non du ngeen jàkkaarloo mhm. il va tout faire pour dindi la ci li nga xam ne mooy élection yi léegi régime bii toog acte bi mu posé ci élection wa mooy am na ay candidats yu mu a bokkal amu ci kenn ku mu attaqué mënul bokk ça au moins il faut leur reconnaître sa amu kenn ku mu attaqué ni mënul bokk parce que tey Barthélemy Diaz bu neexoon le régime actuel du bokk ci élection yi mais ils l'ont laissé. te boobaat ci yoon lañ koy teg. te ci yoon lañ koy teg parce que loi moo ko wax. bu ñu la condamné euh, nga tudd Seydina nga tudd Pape kii ci yam bu ñu la condamné ay certaines peines de prison dañ lay génne ci liste électorale. en plus sax moom Barthélémy Dias waxoon na ko ah, ci kanamu Aïssata Tall Sall. l'a dit à l'Assemblée nationale ci kanamu. Aïssata Tall Sall hmm. Aïssata bi nga xam ne moo doon avocatam dans l'affaire Ndiaga Diouf bi nga xam ne moom lañ ko condamné. Hmm. mu ne ko xam nga bu baax le dossier parce que yaa ma doon defal man kese lañ ci jugé alors que dama doon défendre une institution man je suis là je suis jusque là d'accord avec Barthélémy Diaz il ajoute que ni su fekkee ne réglé réglé wu leen sama problème fii ba 2022 mënu bokk ci élection tey kon bu le pouvoir merci naa le pouvoir tey bu ne woon Barthélémy Diaz mënu bokk ci élection yi parce que dañ ko condamné nañ ko dindi ci liste kenn mënu leen ko reprocher parce que ci loi donc lañ koy teg mhm. mais ils ne l'ont pas fait mhm. le gars il ba léegi ci liste yi il va aux élections sénégalais yi ñooy àtte lan la seen participation mën a changer ci élection bi nga xamante ne lu ëpp presque 40 liste ñu ngi ci participation kan ak kan ak Barthélémy mhm. euh, dama dama jàppoon ne opposition bi nga xam ne moo war a jàkkaarloo ak le Pastef wala boog le pouvoir dinañ mesurer euh, nu ñu koy waxee sax danger yi nga xam ne moo am ci seen séparation parce que élection législative Sénégal far bu la ci kenn nax lu mbooloo mi gën a takku gën a gën a nekk benn say ngay gën a am ay chance pourquoi parce que cinq députés la ñu war a fal su ma juumul 112 yi ñu ngi leen di fal sur les listes départementales liste départementale mu xam nga mooy la liste majoritaire simple. raw gàddu raw gàddu c'est-à-dire ku jiitu yaa jël. tey jii nii les partis d'opposition wala les coalitions de l'opposition euh, wala bokk ñëpp ñi nga xam ne dañuy wax ne opposition lañu teg même bu ñu dee quarante listes. ñu jàkkaarloog benn liste muy Pastef. ñu dem élection ñoom ñëpp bu ñu boo bu ñu booloo. mën a raw Pastef lu bëree bëri mais bu leen Pastef rawee kenn ku ci nekk benn baat jël paie. ku ci nekk mu rawee la euh, benn baat rek rawee la ko jël paie moom mooy jël député yi ñu fa teg yëpp. logique muy Dakar muy Rufisque muy Bambey euh, muy muy muy. Mbacké département yëpp muy département yëpp. loolu mooy danger wu. Euh, division alors xaajaloo boobu malheureusement pour cette opposition la Fatou pour ñu doon booloo. Mhm. lu jafe-jafe lay doon parce que contradiction yi moo bari entre ñoom. bi yaa ngi dégg maa ngi dégg sax may ñëw Seydina di ko wax mm-hmm. à propos de Amadou Ba ak euh, Macky Sall mm-hmm. tey ñaar ñooñu man dama yaakaar ne l'adversité entre Amadou Ba ak Macky Sall mm-hmm. moo gën a metti sax l'adversité entre ñoom ak le parti au pouvoir parce que su ma demee ba dégg ñu naan xaw ma nee na Fatima Tall na génn ci liste yi Aliou Sall magam nee na na génn ci liste yi Amadou Ba waa AFP bu Moussa Fadia di ko attaqué mais ça veut dire que ni mais ils partent dans une division extraordinaire boole ceeg tey Euh, euh, Amadou Ba loo ko contre contre loo xeeb xeeb euh, ak làngam électorat dina ko jël fu mu koy jëlee Seydina ci APR ci Macky Sall Amadou Ba mënul jël élect électeur bu naroon a voté ji pour Pastef la preuve mooy boo xool ñi mu investir yëpp waa waa APR la voilà donc loolu daf leen affaire regarde par exemple boo jëloon département bu mel ni Guédiawaye tey bu ñu ne woon ah, Aliou Sall moo fay tête de nekk tête de liste toute l'opposition jàkkaarloo fa ak benn tête de liste bu Pastef mais Aliou Sall am na chance pour gagner leen mais Aliou Sall tey chance bu mu amoon pour gagner leen dañ koy diviser par deux pourquoi parce que am na waa APR yoo xam ne dañuy dem ak seen wàll. parce que am nañ fa liste euh, bu fekkee am nañ fa liste. am waa Amadou Ba yu dem ak seen wàll am waa. Euh, nu ñuy wax sax sàmm sa kàddu yi dem ak seen wàll et là c'est un vrai vrai vrai problème pour l'opposition beneen bi mooy tey. Euh, les ténors de l'opposition yi nga xam ne man dama jàpp ne dañu waroon a jël risque parce que mm-hmm. élection aussi jël risque la c'est vrai mm-hmm. d'aller se battre dans les départements et de gagner tey ñoom ñëpp dañu làqatu sur la liste nationale ah, comme ni ko Wade defee woon ah. oui tey jii nii Barthélemy Diaz su su nekkoon tête de liste à Dakar waxuma day gagné de mais du yomb ci Abbas Fall parce que loo ko bañ bañ c'est le maire de Dakar am na ay électeurs mm-hmm. malheureusement il est il la liste nationale les Dakarois bu ñu voté pour moom dina impacter sur le département mm-hmm. mais li mu ci doon impacter bu fekkoon ne moom moo nekk le candidat c'est pas la même chose mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen et d'ailleurs Barthélémy Dias ce qui mm-hmm. de de de de tous les gens de euh, de la liste de de Sàmm Sa Kàddu c'est ça non mais Barthélémy rek moo ci mën a taxaw revendiquer une représentativité territoriale loolu mooy dëgg. Barthélémy Dias mën na taxaw ne comme ni mu ko doon waxee man maay le patron de Dakar. borom Dakar borom Dakar mais pour le reste wax ma ci limal kenn par kenn nga ne ma département bi moom moo ko téye. soo demee Bambey man nga ne Aïda Mbodj moo fa nekk fa nekk euh, soo demee euh, Mbacke bu la neexee tey ne Cheikh Thioro Mbacke mi fa waa Pastef investir moom moo fa nekk soo demee fa ma dëkk muy Louga nga bañ ko nga nag ko man nga jusqu'à jusqu'à ce que élection changé waat ko mhm. le patron du département c'est Moustapha Diop l'ancien ministre de l'industrie et cetera et cetera mais jëlal la liste de sàmm sa kàddu yuum euh, comment ça s'appelle Anta Babacar Bougane Bougane Gueye Cheikh Déthié Pape Djibril Fall. Mm. Mm. wax ma ban département lañ mën a contrôler ci Dakar wala ci ci Sénégal. quel est parce que le je suis le patron du département. Mm. or les élections vont se jouer ci département yi. et loolu moo tax nombre de suffrage bi nga am ci département yi moom mooy refléter li nga nar am ci liste nationale bi. mais absolument mm-hmm. tey tey l' élection euh, bii bii jàll nii muy élection 2022 mm-hmm. soo gisee la l' intercoalition Yewwi Wallu ñu am li ñu am à l'assemblée mais c'est parce que l'impact électoral Dakar ak bu Mbacké mais dafa feeñ trop ci liste proportionnelle bi parce que Mbacké ak Dakar dañu voté lu bari pour yeewi askan wi. par intercoalition la woon de et le fait d'avoir pour yeewi askan wi lu bëree bëri noonu ak wattu Sénégal je pense c'est ça wàllu Sénégal. Mm-hmm. mais loolu dafa impacté sur la liste nationale. moo tax malheureusement les hommes